commune bi may bi ma yore neuf postes de la benn ambulance moo fa nekk man maa ko jënd monsieur le kon soxla woon nañ ku ñu jàppale bu baax ci jëm ñoo dote ay ambulance yoo xam ne danañ ko mën a yóbbu ci biir département bi parce que nag dañ fal ñu ñëw fii de tawatal soxla département bi de notre commune, 98,59% de nous avons. C'est l'élection passé passe. Si nous sommes département, nous avons 98%. Si nous sommes national, nous sommes que troisième. Gana faut un matam départ réseau kawla moño kafri moño kon nak yakar nañ ne war nañu mëna gesu dañ may yoni nak monsieur le ministre moo tax makoy wax ben doléance rek la am dina gatt ci cadeau rew liko yenu moy nit nit fay jang di faju nga gis dëkk bu melni ni am 80 en fait arrondissement bi pas la commune nek chef lieu d'arrondissement, am 80 000 habitants yem ci dispensaire ñu doon ñaan monsieur le ministre nga dimbali ñu ci saafara ko alaykum wa rahmatullah

à Zigenchor, ce qui est très grave une fois par mois les gens, ci tu bi boo ci Tant problème euh, euh, tànku nga moyen il faut nécessairement nga Zigenchor. Euh, Nous, Nous ñu avons rek ni ak diligence ak pas-pas bi nga am waa ce dina donne une vieille histoire très bientôt monsieur le ministre celle qui m'a précédé l'honorable Imam Imam Albis l'a dit les ASC les agents de santé communautaire leur statut J'appelle le président du conseil départemental j'appelle M. le maire parce que c'est un budget permettre, c'est un personnel d'appoint certes mais qui sont en train de faire un excellent travail sur le terrain Bon, un qui, comment on dit encore fonction publique locale dina baax trop les charges euh, monsieur le ministre des naa si commission finance maa don doon wax doléance hôpital hôpitalu Pikine bi nga xam niveau 3 la doon wax ci subvention bi nga xamante ne moom la ñu l'hôpital de Thiar de Pikine waaye dégg naa sama collègue léegi wax que ne montant bi relevé nañ ko à 500 millions waaye nag xeebuñu ko di ñaan rek ñu gën ko yokk parce que euh, hôpital yu ëpp euh, daraja Pikine am na wala ñu yem. Nous ñoom defe près de 1 milliard Nous avons une subvention monsieur le ministre des finances ñu koy xaar milliard parce que Pikine war ko am parce que population Pikine a ko soxla bu Nous avons ñu que couverture maladie universelle ca hôpitalu Pikine soxla nañu pour nga jàppale ñu ci